mbir yi doxagul euh, yéen a bi xëy di laajte sax fukki milliards ak ñeent yi ci nguur yoo waxoon ne dina ko jagleel entreprise yeeg ménage yi euh, fuñ ci euh, toll Mor Gassama di économiste xëy di ci indi leeral ci Walf Quotidien ci xëtam bu njëkk. Source A mu ngi ñuy dégtal yi tamit lu wundu commission ad hoc ma ñu samp ci assemblée nationale ngir gestu mbalaanu kirlayu Ousmane Sonko Aïda Mbodj député bi xam ne la ko jaaxal bokk na ci contre x gàcce fës lool. ana kuñ ci waxal ci google procédure mu ngi ci yéene kaabi di source a yéene kaabi xëy taataan ay kaddu Cheikh Bara Dolly bu PDS ne Ousmane Sonko bu jëfe woon ay tegtal ak ay diggé Abdoulaye Wade kon la ko dab tey duna ko duna ko mun a moytu laata ñu ci yegg si tey li quotidien li xew ci uh, coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom la xëyee procureur uh, Serigne Bassirou Gueye ay avocat Ousmane Sonko yi tamit uh, dal ci kawam gis na jeexi jaxa la wone ci dossier gi daanaka ay wax yu waroo am na ca mu ngi ci biir yéen ak bi di di euh, quotidien l'enquête enquête euh, gu yàttu la xëy amaal ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr yéen ak cabinet euh, yëf temagul ca tribunal waaye nag kenn ku ne man ngi cay wax bokk na ci sax Alioune Tine mi xamle ne bu weesoo Karim Wade ak Khalifa Sall nguur gi ma nga ca tànk Ousmane Sonko ngir mun ko nërmel wala boog gàkkal ko ci wàllu politique ba élection présidentielle ñu jëm mu bañ caa bokk Ibrahima Bakhoum di taskatu xibaar jàpp yenn mbir yi daanaka dañ koy féetale eh, ci wàllu politique eh, te itamit eh, yenn saay du doon politique mu ngi ci enquête l'observateur taxaw seetlu ga mu def ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr parquet beeg nam koy waajale bokk na ci bataaxal goo xamante ne avocat Ousmane Sonko jébbal nañ ko procureur yéen kabi tamit ci wàllu communication stratégie matuwaay ca waa Pastef jël police ma ngay jëli ñenn ci ay jegeñaale Ousmane Sonko Euh, di leen teg loxo laata ñu yegg si euh, laata ñu yegg ci muri mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko. réew mi réew mi yéen kaay ne réew mi jur na fi waxtaan tey euh, mbirum suite beauté salon de massage ba Ousmane Sonko demoon ba Adji Sarr jot ko fa tuumal yéen cabinet nag la ca xew la ca laxasu yëpp commission ad hoc bu assemblée nationale taxoon nañ ko àllarba ji dañu soobu ci plénière bokk na ci ay avocat Ousmane Sonko bind nañu procureur mu ngi ci réew mi yéen yéenekaay laas ne Ousmane Sonko la ko taxoon a jëm eh, ca salon de massage boobe bokk na ci feebar ga muy jàmbat eh, te ñu duppee ko arthrose euh, lombaire yéenekaay bi loole moo dal Ousmane Sonko eh, ma demoon nag ngir mun ko faj foofe ca salon bac la ca tukkee ci wàllu kàddu tuuma ya ñu teg ci ndoddam mu ngi ci laas le quotidien ne mbir mu Ousmane Sonko ak euh, mbalanu kiir laayam euh, ca assemblée nationale bokk na ci coow nag fa mu tënkoo ci jamono ji di mbirum X ndax contre X eh, kayitu kalaame googee nag eh, jëm ci tamit ku jeg politique bi am ci jaaxle lool X moomee kan lañu bëgg a wax eh, ay avocat Ousmane Sonko bind nañu procureur mu ngi ci le quotidien Vox Populi El Hadji Malick Gakou njiital grand parti ma ngay taxawu Ousmane Sonko gis ne war ñoo ko xañ mbalaanu kirlaayam ci assemblée nationale bokk na ci gis ne daal politique moo laxasu euh, ci dossier Ousmane Sonko mile moom njiital grand parti. la tribune euh, xëy waxtaanee mbirum Maimouna euh, Ndour Faye taskatu xibaar la njiital 7TV ci débat ya muy amal jagleel ko Ousmane Sonko ak Adji Sarr ma ko tuumal moom Maimouna Ndour Faye jot naa tuumal ne ab étudiant moo bëgg dem ay fanam ba tax na euh, menace de mort jot na ko ci googu lépp étudiant mu ngi ci euh, turbine les échos les échos ne doacu ci jege ñaale Ousmane Sonko ñu ngi leen di teg loxo bokk na ci euh, administrateur bu Pastef Biram Souley Diop soxnaam la ñu teg loxo ma nga garde à vue mu ngi ci les échos libéraux yi itamit ña indi leeral ci communiqué goo xamante ne waa PDS génn nañ ko doon addu ci mbirum Ousmane Sonko mu ngi ci les échos libération libération ne directeur général bu 3D et énergie euh, moom euh, jot nañu jot nañ ko teg loxo euh, ci tabaxum taax googee nga xamante ne mooy xodda ba te mu mujjee nërmeelu ba juróomi bakkan rotoon ca libération ne waa jooje teg nañ ko loxo. direct news saytu gi ñeel xeex coronavirus Sénégal jotoon ci ràññeeku lool waaye nag ci jamono ji Sénégal tëttu na ginaaw ci xeex mi réew yu bëri ñoo ko cay raw fan la gàllankoor yi ndax ci kilifteefu Abdoulaye Diouf Sarr la wala boog ci doxal doxalinu nguur gi eh, ci mun a eh, gantal wala boog mbas mi di corona virus. soleil soleil eh, Seydina Omar Ba ma nga ca ndajëb G5 Sahel foofee ca Tchad njiit réew Macky Sall ñu ngi ko fay dalal invité d'honneur la ci googu lépp ndajëb waxtaan. suñu lamb suñu lamb waxtaanee combat bombardier Balla Gaye 2 combat googee ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu lamb naka lañ ko gisee ci bombardier mi fi daanoon Balla Gaye 2 ci jamono ndax bi la yoon Balla Gaye